asiiru ma lawlaarihi nasiiru wasalla ilaa anni Magal Touba 2023 mbokki téléspectateurs yi baaxoo di ñu topp ci 7TV ñu ngi leen di nuyuwaat amati nañu mbégte gunge leen ci beneen jotaay lépp ci wàccaayu màggalu Serigne Bamba ji ñuy defee fii ci dëkkam bii di Touba Mbacké ngeen ànd jeeg euh, télévision 7TV tey ñoo ngi fii ci Daaru Minam Euh, ñu ñëw kër gi nga xamante ni moom mooy kër Baye Cheikh Ndaw ñu gën koo xam ci péncum paaleen euh, ñu fekk fi sëtam bi nga xamante ni bu koy waxtaane mbaam mi waxtaane jëmm ji di Cheikh Ibra Fall wala Serigne mi ñëpp yaakaar euh, daf ñu ci umil xam bu am solo lool muy Serigne Mamour Ndaw moom la ñu fekk fii ci péncum paaleen fas yéene waxtaan ak moom jaar-jaarub Serigne bi digganteem ak Cheikh Ibra waaye waxtaan ak moom ci jëmm ju baax ji nga xamante ni moom moo di Baye Cheikh Ndaw daañu def visite mu guidé ñu yóbbuñu ci ay pénc yóbbuñu ci guy gi nga xamante ni moom la ñuy dégg ñu naan ko guy ndawen mu bokk ci taarix yi nga xamante ni dañuy wax ne Serigne Bamba jullee na fa euh, am na fa itam ay euh, taarix ak histoire yoo xamante ni du ñàkk mu mën koo baaxee mbokki téléspectateurs yi ñu topp ci 7TV agsi nañu ci kër gi dañuy dem ziar Serigne Mamour euh, nuyoonte ak moom mu dalal ñu fi nga xamante ni moom moo di fa ñuy wax guy ndawen ngir mën a séq moom waxtaan wu am solo bu baaxee Cheikh la ñu àndal ci caméra bi ñu dem nuyoonte ak Serigne laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah dootul ku ñuy présenté moom mooy Serigne Mamour Ndaw ñu xam ko ci waxtaane jëmm ji nga xamante ni moom moo di Cheikh Ibrahima Fall waaye ci waxtaan wu tegu lool ci xam-xam moom la ñu fekk fii fii ci Pencum Paleen ñu am mbégte lool Serigne Mamour ñoo ngi bég ñoo ngi lay dalal ci sa kër 7TV. jërëjëf euh, waa 7TV jërëjëf ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéeyal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ci bis bi nga xam ne Serigne bi moo na waxoon bu dikkatee nañ ko ci sant la boromam ndax lépp lu mu amoon ci la ko amee. waaye muy bis boo xamante ne bii tam àddina bépp bépp fu na waay ne ci àddina bi rek euh, tey sa xel yëpp ngi ci dëkk bu sell bi di Touba. Euh, démb mu fanaanee wàcc xéwal gu bari muy ndox mi ngeen di gis mm. nga xam ne lépp day xéwali màggal gi. Mm. santaat sunu borom bu baax a baax a baax. santaat sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba. waaye nag jaajëfal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne. Mm. moo tax ngeen dikk tey yéen ngi fii ci kër Baye Cheikh Ndaw. Baye Cheikh Ndaw nag di dooy maam Babacar Ndaw bokk ci kenn ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall. Babi Mouridina toppe woon Cheikh Ibra Fall euh, ca Tasineet Gànjool moom maam Babacar Ndaw ba yàlla dogal mu liggéeyal ko ba ci biir ngërëm li Baye Cheikh gane gane jamono euh, mu tudde ko maam Cheikh Ibrahima Fall jox ko ko tey na ngeen ñëwoon fii ci këram ngir rek euh, yaatal liggéeyub jaar-jaari sëñ Touba ci dëkk bi rawatina barab yi nga xam sëñ bi jaar na fa barab bi nag di bokk ci barab yi sëriñ bi jaar bi muy war tuuba ndax defe naa kër gi ñu ngi ko sanc ci 1900 1930 Euh, te booba Touba fukki kër ak ñaar fi ne te loolu seen juróom benn yi loolu yàgg na taarix la dañoo ñëwoon rek ngir ubbee fii ci kër Baye Cheikh Ndaw fii mooy ëttam bi nga xam ne fi la dëkkoon waaw fii waaye daa euh, barab bi mu ngi ci gannaaw fii nga xam ne moo doon kër gu mag gi nga xam ne fi la ku tedd ki jaaroon ci Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. ñu bëggoon ñu dem rek ñu won neen barab boobu mbokki téléspectateurs yi dañ ñuy topp ñu ànd ak Serigne Ndaw ngir mu yóbbu ci barab yooyu waaye itam waxtaanal ñu ci taarixu barab bi euh, topp leen seen télévision 7 TV ñu gën koo yaatal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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mbokki téléspectateurs yi tawféex la ci ñun ñu agsi ci barab boo xam ne dañuy wax ne ku tedd ki moom moo fi julli waaye muy barab boo xam ne mën nañu wax ni ci taarix Cheikh Ibrahima moom moo ko mën nañu wax def xàmmikiw gi tax tey surtout baay Cheikh Ndaw yi féetewoo kër gi mën a xam ne fii la ko tedd ki jullee woon wax nañ leen ko ci suñu ay njëlbeenu kàddu Baye Mamour Ndaw la ñuy àndal ci jotaay bi ngir mu xamale ñoo taarixu kër gi gannaaw ba ñu nuyoog moom ba noppi danañu xamal fii ñu nekk dëgg-dëgg mooy fan ak ana lan moo di taarix bi euh, Baye Mamour fii ñu fii nga ñu indi barab bi moom moo di fan. ndeysaan euh, jërëjëf sëñ Mara euh, jërëjëf waa 7TV ni ñu ko waxee woon euh, léegi rek di leen santaat bu baax te di leen jëfalaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéeyal ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba rawatina ci màggal gi nga xamante ne bii ci la ñu nekk te xam ngeen ne ngeen di wër di topp jeexitali ku tedd ki fii ci Touba. muy barab yi nga xam ne sëñ Touba jaaroon na fi bi muy wër ci dëkk bi barab bii nag ngeen ñëw di guy ndaween dafa bokk ci barab yi nga xam ne bi sëriñ Touba di wër tuubaa fii jaar na fi euh, julli na fi tisbaar ak tàkkusaan loolu lépp da ngeen ko gis ci biir image yi euh, li tax ñu sañcee wax nag mooy dafa bokk ci sunu moomeel ndax euh, sunu maam baabakar Ndaw mii way juru bàyyi Cheikh Ndaw nga xam ne moom ci ku tedd ki la la njëkk a yem ci bi muy wërub sëriñ mu doonoon booba <coughs> daanaka doo ci buur yi waroon a falu bàyyi nguur gaag yëpp dem toppi sëriñ Touba bi mu ñëwee ci ku tedd ki nag sëriñ Touba ci boppam moo ko xool na ko da ngaa fees dëll ak àddina waaye dinaa la boole koo xam ni àddina amu ci dara muy maam Cheikh Ibrahima Fall eh, daal di ko na yabal tasineer gànjool mu dem topp fa maam seex ànd ak moom mm, ba yàlla dogal sax ak njabootam ku mel ne baay Cheikh Ndaw mi miin miñ miin lool mm. foofa la gënee jamono doomi maam Babacar Ndaw la eh, barab bi nag li ñu ci jotale mooy wax nañ ne ku tedd ki bi muy wër tuubaa ci jamono yooyu nga xam ne ci lay sañ ci tuubaa mm. ma xam ne dem ay guy siyaareek rek yëpp nga gis ba ci euh, kees gi di man la faw sëy ni nga xam ne fa la bindee euh, fa fii ci biir kër Sëñ Saliou mm-hmm. nga xam ne fa la garab ga ba mu fa jógee yàggul fa la binde mat la faw sëy ak yu bari ci dëkk bi fu nga ciy dégg yëpp ñu naan Sëñ Tuubaa jaar na fi mm-hmm. ba muy wër dëkk bi booba la jaar fii wax na ne bi muy ñëw guy gi fi la ko ku tedd ki bàyyi fi ko fekkoon euh, wax nañ amoon na ak déem tamit gu fi nekkoon mm-hmm. bi wax fa mu nekk rek bu waxtu du jotee day daal di waajal julli ci la daal di julli ci jullikaay bii ci biir ak jullikaay bii yëpp danañ leen ko woon ngeen gis muy tisbaar ak tàkkusaan mm. kon mel ni sëñ bi jull na fi tisbaar waaye fi la ko fekk euh, bi mu jullee nag bi Cheikh Ibra Fall nag di wër dëkk bi nag di di saytu barab yi ku tedd ki jaar ci biir dëkk bi mm. ci la ñëw nag di fi samp fi ay bant ngir xàmmikaay ko xam naa ñun la doon waajal booba ngir bu ñëwee man fee fekk dara euh, euh, ndax sëñ Tuuba sëñ Musaa Ka ne Cheikh Bamba ne fu ma fi def ab jullikaay def naa fa loolu ko xamoon daf ko jotaay moo tax loolu moo sababoon Seex Ibra nag doon wër barab yi sëñ bi jaar fépp daanaka mu màndargaal ko ngir ëllëg bu jamono doxee ñu mën ko fay fekk bi ñëwee nag bant yi nga xam ne bant yaa ci biir di ngeen ko gis ci biir image yi maam Cheikh Ibrahima Fall ko fi samp ba tey kenn mësu ko sempi muy jullikaay ak suba bi ak bu tàkkusaan bi eh, yàlla dogal na nag bi loola amee nga xam ne barab bi leer gi fi sëriñ bi bàyyi woon da doon faral di ci guddi gu jot leer gi jolli ñi koy séen sax jàpp ne ay rab wala ay jinne fi dëkk Eh, sunu maam ji nga xam ne nag mooy maam Babacar Ndaw di wéyjuru Baye Cheikh Ndaw nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall la ko defal lépp fu Cheikh ma sa dëkk dëkkoo na ko ba mu nekk Tasineer Gànjool fa mu ànd ak moom bi Cheikh Ibrahima ñëwee Ndar mu nekk moom ba mu ñëwee Thiès ba bi ñëwee Njaareem nag mu nekk ak moom eh, bis la ko maam Cheikh woo ca cooneel xombal cooneel xombal gee ci Njaareem na ko Babacar Ndaw mu ne ko Fall mu ne ko nitakum tofam ñaata at la ñuy magante mu ne ko xanaa ñetti at mu ne ko ah, sëñ Bamba jiitoo na ma jiitu na ma Touba kon ren penku laay nawet waaye su ma xëyee na nga gont su ma xëyee na nga gont nag. mu mm. ndekete waxin la te ko xamal ne ko damay dem Touba te dama bëgg nga dëkk seeg man bi Cheikh Ibrahima ñëwee siiw na lool ci 3 juin 1930 la sama Cheikh wàcc liggéey mm. ci at moomee ci semaine wax na avant ñu koy génn la maam Babacar Ndao Doussi bi mu dikkee nag foo dal ñu ne ko fii am na borom wax nañ ne sax dal nañ njenne mm. ñu ne ko fii sëñ Issa jënd fi dëkk muy wër yàlla dogal mu gis fii. ñu naan ay rab ki jinne fi dëkk moom nag doomi buur la woon moom faali wutoon yooyu mu ñëw def fépp mbaaram ñu naan góor gëla ci guy ga ndaw la sant loolu moo indi cosaanul guy ndaween waaw bi mu fi defee mbaaram nag daal di koy fàkk nag fekk fii nag ci moomeelu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke la bokk ndax fii ci Daaru Minam la bokk waaye boobu lotiiseegul dëkk bi mu def fi mbaaram nag bi nee bay lotiise nag ci la dem ci sëñ Bachirou nag sëñ Bachirou daal koy daggal fii nga xam ne ñu fi amoon gis nga kër yi ko wóor yëpp ñoo ko moomoon fii ab tookóoram la woon kër gi ngeen gi gi ñu nekkoon léegi muy kër Baye Cheikh Ndaw foofu moo doon foofu foofu maanaam li waraloon li waral ñun lu waral li waral kër gi néew maanaam barab lii néwul ci kanamu kër gi comme dëkki wuñ nii maanaam lii doon am penc ma dafa waxoon ne maam Babacar Ndaw dafa waxoon ne dëkk bu sëñ Bamba ak Seera Fall ne du ma fa moo tax ñu dëkk ca kanam bàyyi worma wormaal barab bi ndax moom Seex Ibra la gëm te moom la yaakaar te ab jaamam la lii day bokk ci taw feexam li ko sëriñ bi taw feexale bokk ci ay ngërëm yi ko Cheikh Ibra gërëme ndax yombul nga ñëw fekk fi lu tol nii ñu ne la kenn ci seex yi yi eh, toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall penc mu toll nii wala yooyu loolu xay na boo ko doon wër ma naa am eh, du bari lool. ci misaal. ci koo xam ne santut Fall santut Bakk santu buso ab jaam jaamaat la ci maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw waaye nag cër ba am ci Cheikh ra nga xam ne eh, la mu waxoon waxoon na ko ne ko dafa Cheikh Ibra da koo waxoon ne ko la ma topp sëñ Bamba ca sant wa loolu nag feeñ na ci moom tey lii ko Seex Ibra gërëme mooy barab bu sëñ Touba julli ci suñ biir ëtt tisbaar ak tàkkusaan te mooy fii léegi nag léegi nag bi yàlla dogalee nag euh, ñu mu sanc ko nag li war dëkk bi yëpp mu dëkkal fi ay taalibeem ak njabootam kër yi yëpp boo dee xool ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko fii da doon ab tóokóor bi mu nee nag ba war ba nag Baye Cheikh ndaw ndaw màgg nag ba war a ba moom doo moom Cheikh Ibra ko defal lépp Baye Cheikh miin nañ ko bu baax moom Cheikh Ibra ko yar Cheikh Ibra ko defal lépp mm-hmm. moom nag mu daal di sance nag ci kanamu kër gi ndax moo doon ab taawam maam Babacar mi ngi fi jógee 1948 moom mi sancoon fi di doy Baye Cheikh ndaw mooy mooy ab taawam mu tuddee ko Cheikh Ibra Fall jox ko ko Cheikh Ibra sax ko leewu ca tasineer gànjul mm-hmm. tuddee ko boppam mm-hmm. bët yo muuru Cheikh Ibra ne danaa ko defal gis gu ëpp googu ko woo mat soo ko joxee xaalis mu wax ak xaalis bay wax ak moom soo ko joxee loxo mu a la barab sàngam nga jógee nanga ma la dal liy faj sa ajo ma wax la ko su ko nit rombee di ëmb mun a góor la wala jigéen la ëmb bu juddoo nangam lay doon Baye Cheikh kéemaan yooyu da ko daa def mm-hmm. ki sancoon barab bi mooy baayam Baye Cheikh ay taawam mm-hmm. léegi nag bi loolu amee nag fii nag Cheikh Mouhamadou Bassir nag séddañu ko nga xam ne léegi guy ndaween kon ci biir daaru minam la bokk ndax daaru minam a ngi nii booba nag suñu digganteeg jumaa ji dara doxu fi li ma lay wax 1930. booba Touba bam mu daj itam fukki kër ak ñaar fi ne. bi ñu dëkk fii Touba bam mu daj fukki kër ak ñaar fi te doo seen juróom-benn yi. ndax dañoo sore. waaw booba booba dëkk bi yaatoogul booba lii ab àll la suñu digganteeg jumaa ji sama baay nee na ma bu ma daan for gi tax bu ñu daan for gi tax mbaa ñuy taxan ci la suñu digganteeg jumaa ji lañ koy lañuy for gi tax fi la ñuy taxane booba menum suñu Ablaye Diop lew na képp dox suñu digganteeg jumaa ji kooku ci mag la bokk. koroo ba fi ko jógee ci njëriñ noonu la sëñ Modou Moussa jox otom na ko demal jëli borom daaru wax ñu daje Touba Abdoulaye Diop Lew na këram a ngi nii ci kanam booba sëñ Bassirou dëkkagul fii kër mag moom gee résidence foofu ma doon ko sëñ Bassirou da ko joxe addi ñu def ko sëñ mu ñu dëkk fii waaye foofu ma doon ko sëñ comme ni sëñ Blaat dëkke sëñ sëñ foofu ma doon ko sëñ Bassirou waaw booba ke sëñ Abdoulaye Diop Lew na képp dox suñu diggante ak jumaa ji ke sëñ Modou Faa Jama Ñang da nga àll ba muy kër ñang nga xam ne ab àll dox ci diggante bi ke sëñ Bàkki bu sa Gédé booba Gédé ak Touba gis nga niñ dende kër sëñ daa Abdourahmane Lo da koy séen ca ndaam fukki kër ak ñaar yooyu laay wàññi suñ kër gi ci la bokk moo tax fii nag barab la boo xam ne bi loolu amee léegi nag ñu ñu comme fi tedd ki jaar na fi am na lu fi bàyyi ñu yéene ci jullit ñëpp ci barkeel googee ak tawfeex jooju ak ak li fi nit mën a mën a mën a ñaane sunu borom mu mu sotti te ñun xam nañ ci dara am na aajo yooyu buñ ko amee duñ génn barab bi fi lay saafaro am na ñooñ dañañ aaja dara ñëw du génn barab yi fi lay saafara jàkk jii nga gis nii ñoo ko fi def mboolem ñi dëkk ci ko gox bi dàmbale ko ci borom kër gi ñu dend ak ñëpp ñoo taxawoo ba jàkk ji am fi mag ñi fi nekk waxtu julli yëpp fi lañ koy jullee waxtu julli yëpp waxtu juróom yëpp fi lañ ko jullee waaw boo xoolee ci biir yaatal nañ ko dañ ko ubbi léegi ngeen ngeen ngeen gis mbaar mi nga gis nii ñoo ko karaw bu yàggul kenn ci murid yi moo fi ñëw na ma damaa bëgg ñu karaw mbaar mi loolu def na ko ci lu mu ci man lépp wanlateurs yi moo ko fi indi Angleterre sax la nekk waaye du jar du jar mooy tudd turam ndax waaru biir la waaw léegi nag bi nga loolu amee ñu defar ko fii mag ñi ñoo ñu jullee ba pare fii la ñuy toog dañ fiy jàng ay kaamil fii la ñuy wàccee kaamil yi fii la ñuy jàng ay lim ci xasida fi la ñuy yandu waxtu julli yi moo leen wa tëdd rek fi leen fiy jëlee buñ xasee ñëw suba gi buñ tëdd tëdd yi moo leen fiy jëlee mm. laytu xadar fii lañu koy defee fii nga gis nii mm. daaree alxuraan la kenn ci soxna yi soxna yi di doom yi ki ki nga xam ne mooy noddu ci jàkka ji doomam bu jigéen mooy jàngale alxuraan fii barab bee ngay séen na la itam école la boo xam ne école arabe la defe naa def na lu mat ñeenti classe bu juróom am na sax yoo xam noppeegul ndax tamit amul bit sa fer barab bi maanaam li ñuy def mooy euh, dañuy def rek léeg rek kenn koo xam ne sëriñ bee ko yabal mu ñëw am yéene ngir ngir def fi dara wala mu jàppandil fi dara waaye mosuñu ko lii musta am mhm. guléet duñ ko wone wone ko defuñu ko dara mhm. waaw ndax fii waaru mbirum sëñ bee waaw ki ki fi war a tàbbi sëñ bee lay yabal pour nga ñëw waaw waaye nag comme ñëw ngeen mhm. li barab bi laaj danaa ko wax incha allah <laughs> moom am naa ne am nañu ak tawféex te itam ak cant la bu wir ñu ñëw ci barab bu mel nii eh, dañuy daal di gën a yaatal waxtaan wi gannaaw boo ñëwee ci taarixu kër gi ba noppi eh, dañuy daal di dugal tuuti rek ci diggante eh, Cheikhul Khadim ak ki nga xamante ni moom moo di jamaam Cheikh Ibra ndax ñi ngi ci màggal Touba te ku ne xam na ne euh, Cheikh Ibra ak ku tedd ki daanaka ñetti at rek la ñu rawante ci seen jamono maanaam kon ku tedd ki bi muy taxawal màggal géeg di ko woote fekk na fi Cheikh Ibra waaw waaw fekk na ko fi léegi euh, loolu dama wala may tàmbali. ma tëj polanteer bu tuuti rek daal di dugg nag. pour fi ma la wax ci fi la liggéey bi toll gis nga guy gii. guy gu fi yàgg la. guy yi ko mag sax ci dëkk bi bariwul. Uhuh. wax na ne guy siyaare lañ xamoon ci guy gu ko mag. ci dëkk bi. moo nekk foofu mbal ñu bari miin nañ ko. waaw may guy gu yàgg la eh, fi. fi ne nii fii nga gis nii ay jàppukaay lañ fi def su yéenee nag mag ñi ak ak njaboot gi. Mm. mooy ñu yaatal ko ba nga xam dañ fi mën di julli ajjuma. Mm. waaw ci lañ nekk. te loolu am nañ ci yéene ak pas-pas ñu ngi koy dis ku tedd ki nga ne mm. moo fi jaaroon waaw dañoo bëggoon dañoo bëgg fii mu doon barab boo xam ne dañ fi julli ajjuma. Eh, yaa ngi wax ne eh, da nga koo bëgg a tëj sax waaye barab euh, palanteer boobu nga ubbi. Hmm. da nga koy téye. bu ñu waxtaanee ba noppi dama bëgg ñu delsi ndax daa am lu ma bëgg ñu waxtaane ko ci julli gi. ndax man bi ma yegsee ci barab bi li ma njëkk a impressionné bokk na ci jàkka ji ah, a jaaxal ñëpp <laughs> ah, ah, yow ku dul yow sax laaj ko. Eh, yéen ay Baay Faal ngeen. nan ngeen a mën a am amee barab bu mel nii ñu fi jiyee. waaye mooy li ma la wax rek. <laughs> xam nga Seex ba muy sëlmal booba kenn kàbburul xaman nga loolu. ba muy sëlmal booba kenn kàbburul sëñ Abdou Khadir su masaane dégg Baye Fall yi xanaa ñooñu waa kër Cheikh Rafal moom ndax xam mos mosu ñëw sëlmal de waaw moo tax fii nee naa la li fi nekk lépp noonu noo ko fi def mhm. ak ñi nga xam ne ndax fi ne nii ku mhm. toogal maam Babacar Ndaw yaa yilif barab bi xam nga tey jii nii kenn ci njabootu maam Babacar Ndaw moo ko yilif amoon nañ benn way juru ñuy wax maam Bada Ndaw mhm. moo gënoon a doon xëy na tout tànk ci ak mujjëm ci njabatu maam Babacar Ndaw nee na ma biñ sancee barab bi ba ca déwén laa gën ba ca ba ba ca juróomi at juróomi at ya ci topp ndax nee na ma 30 lañ ko sañ 35 laa gën a kon am na juróomi at gannaaw ba ma doon a ñëw jamono waaye mujjoon na fii moom ma doon këram moom fii li fi nekk bokk na ci ñi taxawu ba mu sotti fi yaa ngi dégg de Cheikh Mouhamadou Mourtada doomam ju baax jii ñuy wax sëriñ Maam Mor tey wutu ko ñëw na fi guddi fekk na ma fi am na xeer wu mu teg fii keroog ci sama kanam pour ñu pour ñu yeesal liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw na fii fekk ma fi sëriñ Abdou Hakim fekk na ma fii fii lañ leen dalal kon doomi sëñ Tuubaa yëpp njabootu sëñ Tuubaa yëpp ñëw nañ fi danaa ci dikkaat pour wax la nara barab bi yéene ji mooy lii nga gis classier doon ay étages yoo xam ni gone yi ñoo fiy jàng parce que daar maanaam école arabe la dañ moo moo Azhar nag ci programme Azhar lay dox la ñuy jàngalee foofu loolu la ñuy jàngalee fii mooy mooy daara yi mooy mooy mooy waaw mooy école Azhar yi Cheikh Mouhamadou Mourtada programme booba mooy dox fii ñoom sax ñooy indi jàngalekat yi fiy jàngale mais gis nga bee dañ koo mbaare ay seng mm-hmm. léeg-léeg gone yi ne fa ko yi ci des fexe nañ boom ba defar ko bañ mën faa bañ mën bañ mën faa nekk. léegi nag yéene ji mooy. pour wax ak waa àddina ngir ñu ñëw saytu barab bii. li nga xam ne man nañ ko te yéene ko Cheikh Ahmadou Bamba. ci barab yi nga xam ne jaar na fi te bàyyi fa dara te xam nañ ne ñun fii daraa ngi fi. man aw ma jenn aajo doo xamante ne bii danaa ko sas sas barab bi te sottiwul. mbaa nit ñëw na ma dama bëgg naa ma indi la ci barab bii. nga nga wax fi dara dem. te woo ma na ma la ma doon lijjanti sotti na parce que fii xam nga yaa ngi ko dara xam tey. tey nga fi ma sa ñëw roq la ñu bari xamuñu ko nag. li may wax ci tele yeeg àdduna di ma seetaan yëpp mhm. ñu bari xamuñu ne làq nañ barab bu mel nii tey lañ ko ma a gis kon waa 7TV <laughs> ah. lii moom première fois ci yéen ah, ah. su ko defee nag uh-huh. diggante bi nga may laaj uh-huh. mooy diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina uh-huh. lëg ku ko sànn cib lay defar nga affaire ndax man fenn xam nga loolu ma fi baax <laughs> waaw Cheikh Ibrahima nee rek ma fi ba waaw su ko defee nag kon euh, doy na sëkk rek ci ñu wax ne bis bii ñuy dégmal muy màggalu Touba mbaa xamoon nga ne ku Cheikh Ibra Fall moo gunge sëriñ bi ba muy dem ci tukki bi waaye moo ko tertu bi muy ñibbisi waaw Cheikh Ibra bi sëñ bi dem Cheikh Ibra ko gunge maanaam wàccaay wi sax ci 1895 ci ndar Cheikh Ibra fa jiitu sëñ bi laataa ñoo signé kayit yi ba sëriñ bi ba sëñ Touba ñëw ndar fam sam signé ca bureau gouverneur ndar ci jëmmi boppam fala sëñ bi waaje dama ne Cheikh la fa jiital mu mu wane melow sëriñ bi ak li sëñ bi yor bu doon daal am ko am njaay ma ne Cheikh ay marketing bi boo doon jaay te bëgg li ngay jaay nga jaral mhm. dangay dem ci ko mel ne marché Sandaga wala HLM mhm. bëri na mbooloo xam nga mhm. nga taf fa say tableau publicité li ngay jaay loolu la Cheikh Ibra loolu la sëñ waa defal def Cheikh Ibra Fall ci Ndar li sëñ bi yor te kenn xamul lu doon kenn xamugu ko te muy gànjar te ñëpp war cee jariñu da koo def ci Cheikh Ibra Fall ba yëg ne mel na ni ab murit war a mel mu cëppale ko ndar. lu jiitu sëriñ bi dem waaw booba ñëpp nga ndar. Mm-hmm. booba ku tedd ki ñëwagul. waaye maam Ndiakha Cissé nga fa sëñ Mor Massamba Diéry Niang ma nga fa maam As Camara ma nga fa El Hadj Amadou ma bay ma nga fa maam sëñ Moussa Khir Bay ma nga fa maam Amath Seck ma jaara ma nga fa kilifa yëpp ngi biir ndar Cheikh Ibra ñëw dëkk ci seen biir mag nee na ma. Mm-hmm. sin doodi la njëkk a wàcc ci maam As Camara am ab diir maam As na ko génnal ndar ñu seex i gi Cheikh Ibra dem gën ndar boobu ku tedd ki egseegul ndar Cheikh Ibrahima nooyal bam mu nooy jëflante kilifa yi amul relation ak ñoom mm-hmm. doxal lu bari ci sëriñ bi ci relation am digganteem ak magi ndar yooyu fa nekkoon ba sax bi sëñ Touba ñëwee ndar siiw na lool ci taarix magi ndar yooyu dajaloo nañ ñëw ci sëñ Touba di waxtaan ak moom ne su fekkee ne nangul nga nu ko mm-hmm. ñu doon ci Touba bi ñaanale intervention parce que seen diggante jàmm dox ci sëriñ bi jox leen ngànt mm-hmm. ne leen jëru ko danaa dem danaa delsi bind assurement la ablar jox ko alaaj amin njaay maa bi loolu saarif nettali na ko sarde dese lañ wax am na ñu wax ne fa la ko bindee foofu ci toolu buur léegi nag Cheikh Ibra des ndar ne fa sëriñ bi fekk na ko ndar ba génn ndar dem ba gamoo Cheikh Ibra des ndar moo tax lii nga ma laaj ci diggante sëñ Tuubaa Cheikh Ibra ci tukki bi Cheikh Ibra Fall la ko gunge kon moo ko waajal waaye bi sëriñ bi dellu si itam autorisation bi génn Serigne Touba Gabon indi ko Sénégal Cheikh Ibra ko signé waaw Baye Ibrahima Thiam nee na. Hmm. junni ngurdu la maam Cheikh génne jox ko gouverneur bi ñu sànq ko ca France gannaaw dogalu son borom nag laa li may wax moom Zahir gi la. Zahir gi laay wax ak yow de. ñu ñu ñu ne. Hmm. ku baax ki ne dellu si waat ci réew mi ñu àtte ko hmm. mu dëkk. bi mu dikkee itam. fekk Cheikh Ibra jiiñoon ko jiiñoon nañ ko nag na ko lii lépp yow Fall mm. ndax yaa ko topp ko jay ba tubaab bi jàpp ko tubaab ku mu jàpp doo dellu si léegi nag ñàkk nga ko ñàkk nañ ko xalaat di nga dellu say bokk lii lépp yow a Ibra Fall tee ngaa dellu say bokk jay nga koo jayee jayee jay ba tubaab bi na ko coppit yóbbu mm. Cheikh Ibra ne ma muñ rek bi sëñ Tuubaa ñibbisee nag bi muy ñibbisi mm. Cheikh Ibra yëg ko bàyyi ko ndar takk jëm ndakaaru lam njëkk a def moo jëndal ko kër gu muy wàcc xam nga fu ko jënd. Hmm. ci pale bi. moom lañ doon wax laam bi naan. ma ne Cheikh moom suuf si. principal la tàmbalee ëmb avenir am moo occupé woon lépp. Hmm. booba sëriñ baa ngi wàcc. te Cheikh Ibrahima Fall bëggul fenn fu sëñ Tuubaa wàcc du tumaranke fu mu nekk. kër goo gis si tefes mbaa gaar li ko indi mag ña ma ko wax. dalaa daa ko tefes mbaa gaar. ngir xaar ñëw sëriñ waaw parce que bëgg na fu ko tubaab yi wàccee ci bato bi. wala ci saxaar gi mu dox tuuti ak këram. bu mu wàccee ci port bi 11 novembre 1902 Sam Serafal ko teg fi daaw moom la menace fa la ko dalal. ba mu wàccee Laminas ba mu dalal ko ba noppi fekk njëkk na ko jëndal kër fi ñuy wax rival mi ci ndakaaru mooy yàq jëf xam nga rival mi la ñuy wax yàq jëf Serafal ne xeexee doom fii nu mu tudd ñu ne ko yàq jëf mu ne xeexee nañ randu fu jëf du yàqu Ibra fu jëf di yàqu Ibra Fall du fa dëkk mooy rival mi tey ci Ndakaaru Cheikh Ibra jóge fa ñëw ci en face robinet la sana bentali Cheikh Ibra occupé jënd foofu en face ma jëy sàll noonu ah mhm. Cheikh Ibra ñëw nag laminaas nag mooy pale bi mu wutal fa sër kër sëriñ bi kër wutal ko daara ci wet gi sëñ bi wàcc fa sëñ Tuubaa fanaan na ci pale bi de mhm. sëñ Moussa Ka ko wax bis ba Cheikh Bamba fanaanee laminaas koroog murit yi mbëgte mbëgte moo xam jooyloo na France ku tedd kii nag daal di nag wàcc foofu ba dal nag daal di commencé waaj nag def tournée yi muy def ba àgg Daaru Salaam maam Cheikh ko ganalee mm. mooy màggul Daaru Salaam mm-hmm. bi mu sancee Daaru nag gii ngeen jóge ba yónni Cheikh Ibra ak Cheikh Anta mm. pour ñu waajal ko lal yooyu ñu fa doon def mm. ci lañ ko kalaame waat ak tubaab bi loolu moo war a tukkib gànnaar kon ba tey tukki boobu Cheikh Ibra génnu ci ndax dañ ne woon mooma parce que lal ya lañ lañ làmb ne ay fital la ñu waajal sëñ pour yóbbu gànnaar tuuma yooyu foofu la Buur Sine Kumba Ndoofeen jébbaloo hmm. nga xam ne koroog bañ tuumaale sëñ bi ca njaareem na daa jël ay ngàndaay ngir bëgg a jàkkaarloog nasaraan bi hmm. koroog ba Buur Sine Kumba Ndoofeen taxawee dafa summi mantoom teg ak suufu siin na loolu la garanté su fekkee ne wër nañ gis fa ay ngànnaay nañ ko rey jër soo siin waaye sëriñ bee ma gis ci mbàkki neen amu jotu xeex na sëriñ bu seey ca yàlla taxol ba dafaa jeex Buur Siin daal di seelal sëñ Tuubaa ne ku bëgg yàlla la ku bëgg yonente bi la as gor la ab julit la àddina ngeen dàq te àllaaxira leen liggéey la sëñ Tuubaa ne ges borom daru muxti na ndax xam nga lan mooy tonu mu ne ko déedéet mu ne ko tonu mooy mu ne ko waaw maam Thierno ne ko tonu mooy nga jënd juróom jaay fukk sëñ Tuubaa ko ëpp na ko tonu mooy nga am àddina ji am àllaaxira def naa ko ci Buur Siin ak képp taxoog moom Bour Sine ku ma Ndofène ba loola amee Bour Sine rocceeku na dem Daaru Marnaan gisee sëñ Tuubaa delluwaat di ko wax pexey tubaab bi armée bi ñëw Daaru Marnaan ñu jëlaat sëñ Tuubaa foofu yóbbu gànnaar yóbbu looloo indi tukki gànnaar bañ ko yóbbuwaatee gànnaar nag autorisation bi ko jëlawaat gànnaar indi ko seerafale ko signé hmm. waaw kon moom mosutee tàggoo ko tedd ki waxtu wu ci nekk rek mosu ko tardé dama dama xam ne buñ ko toppee kenn xamul nu mu demee waaye waaye waaye pour tënkal la ne <laughs> lépp loo xam ne. dana delloo si sëriñ bi ci réew mi. loxol Seex Ibra ngi ci. ba ni sëriñ bi delloo si ci réew mi. kon waaw. Mhm. waaw kon nag maam Cheikh Ibrahima Fall. ci sëriñ bi da ci am wàccuwaay. Mhm. waaw. tey tey ñi ngi ci màggal gi gis nañ ay mesures ak i tere yu bari yoo xamante ni euh, ku tedd ki Almuntaxa Bachir xalif général euh, de Mourides yëkkati na ko teg ko ci loxol Baye Fall yi ngir gën a wormaal dëkk bi euh, en tant que. tey surtout Baye Cheikh Ndaw bokk ci ñuy wattu ci li fi suñu maam seex Ibra bàyyi naka nga gisee euh, war ma yooyu ndax dëkk bi ñu ngi koy wàccoo ak itam ban message nga ciy yóbbante taalibe yi màggal. waaw xam nga loolu moom loolu gàtt rek laa ciy tënk. li ma ciy tënk mooy. dëkk bi daal borom. Cheikh Ibra neewoon na war ma ak màggal ku la ko ci sëñ Tuubaa moo bu ko def morom. war ma sëñ bi ak màggal mm-hmm. moom Cheikh Ibra Fall. Mm-hmm. daal. musu fee dëkk sax far benn yoon gébb fan la tuddoon la dëkkoon tudde ko wane gi Touba bàyyi du ñag neen suñu masaan liggéey Mbàkke suñu masaan liggéey Touba Mbàkke la ñu sumee suñuy daal dox ñëw Touba am na sëtam yoo xam ne xam naa ne man fres képp duñ ko soxoon xott ba duñ ko sànni Touba kon nag képp ku ne ci dëkk war ngaa roy njabootu seerafal ci loolu wor ma ji daal këyit yi tënk nañ ko àddina bépp gis nañ ko mi ngi ci internet bi nañ ca dox te sàmmal Serigne Touba li mu bëgg ci dëkkam bi am nga ngërëmal sëñ Tuubaa ku ko deful Baay Faal dal sa kaw loolu dong mooy liggéey waaye dëkk bi moom lépp lu yelloo wut ak dëkk bi sëñ Tuubaa nee na buñ ko fi indi loolu la seen Cheikh boo ma ko mayee dafa am euh, palanteer bu mu ubbi woon ci mbàllum julli gi dama cee bëgg mu duggaatal ma ci tuuti rek ndax bu ñu waxee Cheikh Ibra maanaam dafa bari ñoo xamante ni ci ni ñu ngi ko jàngale tey sax déggaat nañu weneen jàngalin wu bokkul ak ni ñuy dégg Cheikh Rafal ndax xamal nga ñu ne euh, bari na ci ay kayit yoo xamante ni moo tax sëriñ bi dellu si moom moo ko signé kon mën nañoo jàpp ne ku amoon xam-xam la intellectuel la woon te itam amoon na relation ak ñi nga xamante ni ñoo di tubaab bi euh, bu ñu waxee Cheikh ñenn ñi ne daawul julli daawul woor ak yeneen kii yoo xamante ni dinañ ko wax ci moom ñu ñëw ci ëttu xamante ni ëttu Baay Faal la ñu fekk fi jàkka yéene ji mooy mu doonu euh, juma gis fi daaree alxuraan ak yeneen maanaam kon ban loolu nan nga ñu ko mën a tekkalee ci diggante julli gi ak baay Fall gi. waaw xam nga li indi barab bi nga fekk fi jàkk ji te ñu ko fi def wala ñu moom ñi moom barab bi te yor ndigal li. duñ fi julli ndax ay Baye Fall lañ Cheikh Ibrahima lañ gëm. nga fekk mu mel nii ñu koy saytu di ko defar. di ko waajal ba ñuy julli ñëpp te dëkk ci koñ bi nga xamante ne bii ñëpp ñu fi nekk di fi jullee. loolu kay bu mu la jaaxal ndax xam nga li lay njëkk jaaxal mhm. mooy soorol bi ñu tudde Cheikh Rafal ba pare tudd fa julli njabootu ñu fa julli te Sëñ Fallu ko def ko def làmbatuwul xam nga ki def lii moom làmbatuwul soorol bi Sëñ Fallu décoré ba mu koy def mhm. yegg na ci laaj ku xam nu ma koy tudde mu jaral ko mu génn am neexalam xel yi dem na fu ne de waaye fàttali ko ne samaam Cheikh Ibrahima Fall sooy dugg Touba looy seen làmp sooy génn Touba looy mujjee seen du làmp waaye làmp di julliwu ci jumaa ji moom waaw ba pare boo demee ci bayitu sëñ Moulay bu ya wala sëñ Mbàkke Bousso da nga gis mu koy woy ak a kañ kor bu génne àddina mhm. waaw dama ne te sëñ Mbàkke Bousso xam moo mhm. mosu safaat waxtu mhm. bu la kenn yéem na la sëñ Tuubaa yéem moom mi boole ñaar ñu bokk fuñu jëm te bokkuñu yoon waaye ki dut faat waxtu bu dee ba jël xalimaam di taj ko julli waxtu xanaa am na leen lu ne ci biir moo tax gis nga Cheikh Rafal sëñ sëñ sëñ Abdou Samad mu sëñ soñ bu nee na ma sëñ Lamine Gueye si moo daa wax ne Cheikh Rafal foo ko sëñ Tuubaa làq la kenn xamul waaye néew ciy caaxaan koo fi gis day ku munta ñàkk waaye Cheikh Ibra dëgg la Mara. Mm-hmm. waaw ndax day ku munta ñàkk waaye Cheikh Ibra dëgg la waaw léegi nag léegi nag jàkk ji moom <laughs> danañ la ubbi nga xool li ci biir mm-hmm. àdduna bépp gis ko mm-hmm. ñi ko moom di ko saytu def def fi li fi nekk mu ne naa la man ñi karo yi nga gis nii yii ñoo ko fi def maak benn waay ka vendeteurs yi ñoo ko fi def yeneen ak yeneen ñu ngi koy waajal moquette yi ci biir ñoo ko fi indi yaa ngi dégg de sunuy maama ko moom barab bi ñoo ko yilif ci sunuy waaw lay wéy julli ah, waxtu ah, julli yëpp mboolem ku dëkk ci koñ bi. Mm-hmm. fii nga koy defee léegi nga gis ñu dégg ñu noddu. Mm-hmm. waaye ñun duñ fi julli waaye lu fi war ñoo ko fi def. loolu Cheikh a <laughs> jërëjëf Baye Mamour bëgg nañu lool xam naa ne waxtaan wi bu ñu sañoon jotaay bi du ko yëkkati du jeex waaye njëm télévision dafa am programme am na muy doxe te itam bari na ay barab yoo xamante ni war nañu faa àgg dañu koy yemale fii rek ñàkkul ne itam am na ñuy seetaan euh, télévision bi gis barab bi ñu leen woon tey tawfiix la ci képp kuy taalibe nga gis ko boo amee itam kattan goo fi mën a def. waaw waaw xam naa barab bi moom ku gis xam nga mhm. lu ne lu ne war nañ ko bëgg gis nga ndox mi nii mi def fii day taa mhm. suñ sañoon lii lépp dañ koy karo mhm. comme niñ karoo fee ñi ngi def nag waaye fii la suñu kàttan yemagul lu ci des mooy li ma la wax fii bëgg nañ ajjuma ju jot julli ajjuma mën a yaatu bañ fi jullee ajjuma insha allahu école école yi nga gis ne da ngeen ko wane daara ji gis bëgg nañ euh, étage ko ba nga xam ne donga yi koñ bi xale yi fi nekk yëpp fi la ñuy jànge daara alxuraan ji bëgg nañ teg ci kaw mu doon daara joo xam ne ci kaw ak suuf yëpp day jël ay xale li fi war lépp daal bés bu set bu waxtu jàng jotoon wala du waxtu programme màggal gi da nga gis day fees dell ak xale ñuy jàng mag ñi nekk fii duduru xasi day jàng alxuraan ji boo waxtu julli jotee ñu julli lool laa leen di waaye lu fi war ci saytu nag mhm. ak defar mhm. du ma fi géej bés bu yàlla sàkk maa ngi fi mhm. fii moom barab bi képp koo xam ne bëgg nga fee bëgg nga cee barkeelu maanaam muy moo xam da nga sa moket wala nga yor sa basang wala nga yor sa vendeur wala nga yor lenn loo xam ne ba ci sa saaku ciment sa wala sa karo nga xam ne am ngi yéene def ko ci guy ndaween fii nga xam ne ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba moo fi jaar soo ma woowee ci numéro 77 813 62 01 77 813 62 01 mën naa ko baamtuwaat 77 813 62 01 soo ci wootee mm-hmm. danañ ànd yow ba ci barab bi mm-hmm. nga tàbbal fi sam ñax incha allahu ci niñ ko bëggee muy barkeelu mm-hmm. ku tedd ki nangul la ko <laughs> <laughs> jërëjëf euh, kon ñi seetaan dégg nañu message bi képp kuy murit mbaa ngay taalibe wala Baay Faal euh, xam nga li la war ci kër gi ba nga bàyyi xel na digganteem ak jumaa ji waaw ci aw ay jéego yu gàtt lay dox de man na maa dox léegi àgg ci jumaa ji de waaw ay mbedd rek lu mat juróomi mbedd képp juróom benn mbedd rek boo ko doxee ak ah, jumaa ji jumaa ji ah kay jumaa fii ci daaru minam daaru xuddoo sax yooyu ñoo war tudd yi mhm. fii ci daaru minam la bokk sëñ Basiru ke sëñ Muntaxa ñeenti mbedd juróomi mbedd tee nga àgg ca moom waaw waaye nag barab bee ruqe fi ne kooku wonu du ko xam ah, waaw waaru biir la daal <laughs> yàlla yàlla faj aajo yëpp bu aajo bu ñu fi indi rek yàlla ko saa borom faj doole Cheikhul Khadim doole Maam Cheikh Ibrahima Fall euh, bég nañu lool Serigne Mamour ñu bàyyi la rek nga tàggatoog ñun li ci des mooy li ñu leen di baaxee moom dañ leen ko defal addi Serigne Touba mooy na leen Ablaye ubbil yow ak cameraman yi yëpp ngeen dugg fii sëñ ku tedd ki toogoon julli fi mm. ngeen toog fi yéen tam comme neex nga def sa ñaar rakka Euh, def ko àddiyee sëñ Tuubaa te ñaan yàlla fa suñu aajo kooku tawfiix la bég nañu téléspectateurs yi seetaan am nañu tawfiix lool dugg ci barab boo xamante ni ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo fi julli euh, suñu maam Cheikh Ibrahima Fall mandarga ko ngir njaboot gi nga xamante ni euh, ma ngay ñëw mooy li may wax rek Cheikh Ibrahima dañu koo jàngalewul sax ci anam bi ñu ko war a jàngale waaye ku amoon vision la ku amoon gis-gis sori la ndax ba muy samp bant boobu xëy na xamoon na ne tey bés a ngi ñëw Ndaw dana fi taxaw Mara dana fi taxaw télévision dana fi ñëw ngir àddina xam ne sëriñ bi julli woon na fii te bu du woon ak mandarga gi amaana duñu ko xam kon Cheikh Ibra kenn du moom <laughs> kenn du maam Cheikh Rafal kon Cheikh topp ñu ñu dugg ci barab bi nga wan ñu li nga xamante ni moom mooy bërëb bi Serigne Bamba jullee woon fa la ilaha illallah إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله mbokki téléspectateurs yi bëgg nañu am nañu yaakaar ne numéro bii bi dina bokk ci numéro yi leen gën a neex ci leen 7TV euh, dëgtal ci màggalu Serigne Touba yi ne woon nañu leen daañu dem ak yéen ci barab yu bëree bëri digge bor la moo taxit it boobu ak léegi ñoo ngi ciy bay suñu waar tey fii la ñu ñëwoon euh, ci guy ndaween mu nekk fii ci daaru minam di ëtt boo xamante ni suñu ëttu maam la moom Baye Cheikh Ndaw waaye itam suñu ëtt euh, maam la moom maam Babacar Ndaw ñu taxawoon ak sëtam bii di sëñ Mamour Ndaw mu ñu doon xamale ak taarixu kër gi bëgg nañu lool dañ leen di jox dig daje ci yeneen i jotaay jaajëfal bépp téléspectateur boo xamante ni mi ngi ñu doon topp sur la 7 TV télé bi ñu nuru ba noppi dañu dajale màggalu Touba 2023 18 safar muy mbégub jàmm.